nii di sëñ Abdou Seck Ridial sëñ Ridial sunu taw bàyyi ngi nii bu jigéen di sono sooda ak sët sëñ maam Ridial yëpp ñu ngi ci biir mbooloo mi ak mboolem dongay laxasaay ak dongay tërbe yi ak fédération bi ñi leen jiite ñëpp li mu am lépp ñëw na Mbàkke sëñ Ridial di xam le ne Serigne Touba rek lay diglu te bi muy nekk bi Serigne di nekk guy mbind la dégg ci baatu baatub Serigne Touba lu mës a dégg ci mu wax ko ci yow ci kenn ndax booba kat la Serigne di ay tànkam loolee la lay nemmikoo nag ba agsi fii tey sof ko le rek sëñ Abdou Khadir ga ak Cheikh Amdi Seck Ridial ndax sëñ Abdou Khadir mos naa lamub di ko tooñ ne ko am di lu tax nga was sa sikkim bi mu ne ko kenn darul góor ku dul yéen doomi Sëriñ Tuubaa kon nag Mbàkke ja kóllëre googu nag sosu ba ci maam Cheikh Ridial maa ngi la koy wax léegi am ak Sëriñ Tuubaa ñaar fukki at ak juróom da koo mujjee sedd waaye bokk na ci ñëkk a ñëw ci sëñ bi 1902 la ñëw ci Sëriñ Tuubaa ànd ak moom ñaar fukki at ak juróom fekk na ko xumaag bokk na ca muritu xumag ga ba ni muy ñëwee murtani ba ni muy ñëwee ba ni muy ñëwee njaareem jataay boobee Mbàkke ngay dégg am na ci téereb Sëriñ Alaaji Mbàkke boo demee daara kaamil da nga ko fa fekk bari nañu bari nañu ko saxal Sëriñ Tuubaa dafa woo Sëriñ Mor Sekk Rijaal ne ko may naa la sama bopp lu tey doon mën na ko altine mën na ko talaata àllarba alxames ba àjjuma ku dul yàlla bu mu ñetteel fa mu tàmbalee waxtaan wa def ko ne Mor Sekk xam nga ma mu ne ko déedéet mu ne ko man Ahmadu laa tudd Mor Seck xam nga fu ma dëkk mu ne ko déedéet mu ne ko aljanatul firdawsil ahla laa dëkk mu ne ko firdaws àjjana yëpp gis yàllaa ci dàq te foofee la yàlla dëkk Mor Seck mu ne ko Mbàkke mu ne ko foofee de góor yàlla yëpp la dëkk waaye kenn sañu faa dëkkal kennam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam de mën na ko moom waaye ginnaaw ba la ko man Amadou mii ngay waxal nag ah, képp koo xam ne sukk na jaayanteeg moom ak taalibe wut ci ta wut ci moom ak taalibe ba am ko loolu na ngay wax ji wut ca moom ak taalibe ba am ko boo ëllëgee ñaar yéenay bokk dëkk foofee rijaal mu ne ko Mbàkke mu ne ko doo dégg doomi soxna yi di wax kaamil mu ne ko ankay ah mu ne loo ko teg mu ne ko alxuraan ji lool loolu du kaamil loolu ab jukki la rijaal mu ne ko Mbàkke mu ne ko ku ma gisul man amul gisul kaamil bi mat bi kaamil yàlla moo ko ameel boppam yónent bi muy yónni jukki ci lu àtte sa jamono jox la ku ma gisul mën ahmadu mi kaamil bu mat ba sëñ Noor Seck Rijaal nee la ko suñ tu wax ci jotaay boobee am na ci loolu du am na ci loolu yow man xiyam kóllëre googee nag moo waral bi ko mayee barkeb bi mu ko mayee barkeb maam Rijaal jël oto ak sëf kooki bagage ba mu fees jóge fële jóge fële maanaam ndogal yéet ko sëñ Tuubaa addiyee bu amoon na boobu barke ci nekk sëriñ Tuubaa waaye am weef gu toll nag am taalib bu ko indil mbëpp ginaar mu ne seytaan damay fiir su ma joxee sëñ Tuubaa dara seytaan fiir na ma daal di yanul boppam mbëpp ga doxe njaa ba njaareem ba mu àggee sëñ Masamba Diop Samb da ko ne tey de muuru Masamba du la jébbale man mii maa lay jébbale dikk ci ne ko Mor Sekri Dial mii de damaa gis mu defal loo xam ne bëriwut ñu ma gis ne ko lan mu ne ko lan ponkal fa ndogal mu am barkeb joxe oto bii biig am woyefuk yanu ma pugg naa xam ndogal di dox sedd beeg dégg yi ak ba ak si fii mu ca bi ma ko laajee lu ko waral mu ne ponkal kenn di ci rocc goppam tama mënal ko sama bopp sëñ Tuubaa ne ko du kiimaan rek Yàlla dañ ko rafaatale ak njaam ne ko yonent ku mos a liggéey ba dem suñ suñu borom dama jox sab garaat yonte bi yàlla bi ñu wooy aayo ba ne man abdu boobu laa ko rafaatale rijal moo tax sama baay daan wax ne mbàkki si ngir jàll gëm bamba di saytu mbàkki ba si fii nee na sañoon loo nekk moo koy taxawul boppam loo nekk kenn du ko ca doy ndax li mu dégg ci yow kat sëñ Tuubaa wax ko ba muy nekk guy mbind nee na mos koo dégg nopp moom sëñ Tuubaa wax ko kenn te loolee ak taalibe bi rek la mi ngi lay sant bu baax di la gërëm di feddilaat sa kóol rek moom waaye sori dong de moo tee bis bii mu ñëw taxul ko boppam ca lim nu jox ndigalit mooy ñu ñii ñëpp na nekk ci bis ba ba ba am sa ngërëm loolu rek la Mbàkke kon nag ñu ngi jégalu ñëpp di baalu ak ñëpp di baal ak ñëpp. teg ci loxol sëñ Sam mi. ak mbooleem sa mbokk yi nga àndal yëpp. mi ngi leen di yóbbante nuyoo. ci Serigne Ridial Seck. ak mboolem ñi mu ko seqal yëpp kër ga. ak mboolem ñi mu seqal kër ga gépp di sant bu baax a baax. sëñ bi ne ñu ngi koy sant bu baax a baax. di gërëm ñu ngi koy gërëm. ndax keroog bi mu fi ñëwee. ndax ne keroog bi mu fi ñëwee. fasanteeg man kóllëre. fasanteeg sëriñ bi kóllëre. cofeel gu rëy ko lal. cofeel gu rëy ko lal. waaye ba ma ko ñëw rek. ne moom ba mu ko séenee muy ñëw rek. li Cheikh Mouhamadou di faral di jëfandikoo. li Cheikh Mouhamadou Mountakha faral di jëfandikoo. naan da nga maa soññaat. naan da nga maa soññaat. waaye ba mu di ñëw rek. mais bi mu gisee Baye Ridial mu séen ko di ñëw rek. dama dama soññ man. nee na moom dafa daf ko soññaat. ndax dama xam ne. nee sëñ Bas nee dafa xam ni. murid yi seen Pastef. murid yi seen Pastef. seen digg ak sëñ Touba. seen digg ak sëriñ Touba. ak fañ àgg. ak fañ àgg. lu mat a bàyyi xel lu mat a bàyyi xel la. ndax ku ko gis. ndax ku ko gis. xam li topp ci ginnaawam. xam li topp ci ginnaawam. ak ni mu toroxloo bi ñuy ñëw fii yéen ànd keroog. ak keroog bi ñuy ñëw fii noo ànd keroog. ni mu toroxloo jëmmam. ni mu toroxal jëmmam. te jëmmi sëñ Touba rek tax. te jëmmi sëñ Touba rek tax. te gisul ci ñun dara luñ ko gënee. te gisul ci moom dara luñ ko gënee. dàquñu ko jaamu yàlla. dàquñu ko jaamu yàlla nee na. gënuñ ko def dara. nee na gënuñu koo def dara. muy xool ci ñoom sëñ Touba. xool ci ñoom sëñ Touba. kon loolu rek a mat bàyyi xel. sëñ bi ne loolay mat a bàyyi xel. sa yi nga wax it. nee sëriñ Sam sa kàddu yi nga wax. ku ko dégg. ku ko dégg. xam ne defar nañ leen. xam ne defar nañ leen. lii mooy defarug sëñ Touba. nee lii mooy defarug sëriñ Touba. defarug sëñ Touba du yàqu mukk. nee defarug sëñ Touba du yàqu mukk waxtu wu ne. waxtu wu ne. léeg-léeg ma di ci yee ñennat. ne léeg-léeg mu ci yee ñenn de. ñennat. nat naan leen yoon wi. naan leen yoon wi. lii dëgg dëgg dëgg yoon wi. lii dëgg dëgg yoon wi. di cosaanul yoon wi. di cosaanul yoon wi. kenn du ci am lu la naqari. kenn du ci am lu la naqari. ndax ñoom taluñ ko sax. ndax ñoom taluñu ko sax. jaamu yàlla. jaamu yàlla. liggéey liggéey. wéy ci ndigal. wéy ci ndigal. taluñ lu dul bi. taluñu lu dul sëriñ bi. kon day mel ne. ne kon day mel ni. dama naan léeg may may yedd suñ bopp sax. ne léeg ñoom dañuy yedd seen bopp sax. naan bu ñu xoolee ci ñii de. naan bu ñu xoolee ci ñii dey war nañoo góorgóorlu war nañoo góorgóorlu. ndax ñoom ni ñu dëddoo àdduna. ndax ñoom ni ñu dëddoo àdduna. ak ni ko sànnee. ndax ak ni ko sànnee. te àdduna ñëpp ko bëgg. te àdduna ñëpp ko bëgg. ñu bàyyi ko ngir yàlla jëmmi sëriñ bi. ñu bàyyi ko ngir yàlla jëmmi sëriñ bi. loolu ak soññee la. waaye sa kàddu yi nga dégg. waaye sëñ Sam sa kàddu yi ñu dégg ku ko dégg ku ko dégg xam ni waxi sëñ Touba la defarug sëñ Touba nag mooy loolu ne defarug sëriñ bi nag mooy loolu moo bi kii di sikkar léegi moo tax bi kii di sikkar léegi loolu mooy mbirum sëñ bi ne loolu ay mbirum sëriñ bi sëñ Touba ku ne lam la defal ne sëñ Touba ku ne lam la defal sëñ Abdoulaye dafa waxoon ne sëñ Abdoulaye dafa waxoon ni murit bu ne murit ne sëriñ Touba defal na la loo xam ne sëriñ Touba na la loo xam ni wan na la sa bopp wax wan na la ci sa bopp. wan na la ci sa bopp. wax la ci sa bopp. wax la ci sa bopp. sa digg ak sa borom. sa digg ak sa borom. li tax ñeewoo kenn. li tax ñeewoo kenn nag. daan benn murit bu bëgg di morom ji amul. ne benn murit bu bëgg di morom ji amul. loolu nag nit ñi dañoo déggul wax ji. waaye ne loolu nit ñi dégguñu wax ji. ndax nit ñi dañoo jàpp ne taalibe yee tax muy wax. ne loolu nit ñi dañoo jàpp ne taalibe yee tax muy wax. waaye loolu ñi Sëñ Tuubaa defara tax muy wax. waaye loolu ñi Sëñ Tuubaa defara tax muy wax. ñu bari dañ ko déggul. ñu bari na dégguñu ko sama classe. léeg-léeg nga dégg murit yi di ko wax. léeg-léeg nga dégg ñu koy wax rek. waaye mag ñooñee tax sëñ Abdou Lahad di wax. kon nag lii ne kon lii. ne ko fu mbégte àgg rek àgg na fa. ne fu mbégte àgg rek àgg na fa. nangul nañ ko ko bu baax. nee na nangul nañ ko ko bu baax. siyaar beeg lépp. nee ñangul na ko siyaar beeg lépp. di ñaan ci barke Sëñ Tuubaa. nee mi ngi ñaan ci barke Sëñ Tuubaa nag. moom mi nga xam moom mi nga xam ni. jëmmam ngeen di xeeñtu. ngeen di xeeñtu. yàlla nangul leen ko. yàlla nangul leen ko. fulal leen tuyaaba ji. fulal leen tuyaaba ji. fulal leen addiye ji. fulal leen addiye ji. ngeen yàgg koo def. ngeen yàgg koo def. daje ceeg tawféex ak ngërëmu sëriñ bi jërë ngeen jëf jërëjëf amin waaw jërëjëf Mbacke amin amin Mbacke amin amin amin